du alal du ñuy doon waaye des na ko rafetal dama bëggan bu boo fi dikkatee nga dikk nemmiku kër gi ma ne ko ndeem soob na suñu borom ma di ko nemmiku ba yàlla dikk ak i dogalam mu ne ma soo sañan nga fi bay ay yére yoo xamante wala dara nga xay da ngay dikk nemmiku kër gi di nemmiku xale yi ma ne ko bu soobee yàlla euh, danaa ko de bàyyi wàlla saa yi ma fi dikkee danaa dem nemmiku kër ga bu màggal goo danaa ko nemmiku ma dem ci kër ga nag euh, borom kër ga tey jii di soxna Astu Ngom ak doomam Mandiaye ne ma boo demee mbooloo mii nuy àndal samay doom a ngi ci nekk ñëpp a ngi ci nekk ak samay rak maire mbub mi naa ko boole ak yéen boo demee képp koo xëy sëñ Talla laa meññi jot nañu cantam ak ngërëmam suñu diggante ak moom kon Fall wax nañ ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm te di la lii lañ doon séntu sëñ Talla Fall Modou Mbenda biñ ko gisee tuuti daa mel ni gis nañ sëñ Talla ndax képp koo xëy sëñ Talla laa leboon bor bu la gisee mën nga ko fay ndax njaboot njabootu seigne Talla Fall Mourou Menda nuñ mel seigne Talla tax luñ am seigne Talla tax kon Fall yalla saw fon gudd njaboot ak Balla Ngom muy góor ak jigen mak ak. mbira maro dasa bina ni dina xana señ señ jot li kaddu señ rek ñu jawal moy señ gannaaw bi mu sante sunu borom julli ci bi sallallahu alayhi wasallam serigne touba ak cheikh ibrahima fall ak serigne modou mbend fall mi mamam ak serigne tala modou mbend bi nga modi modi yaakaram Sering bi nee na mi ngi sant ñëpp tey ñaanal sëriñ Balla Ngom sunu borom dolli ko ay leer ak mbooleem kum fa fek ak ku ko fekk gannaaw dem gi manta ñàkk yàlla na yeex sëriñ bi nabubah na xolam sedd na bu baax mi ngi sant bu baax soxna ak sëñ Ma mi nga ne la andal ak ci liggey bi ak bokk yi nga xamne ño and ak soxna Astu Ngom biniana ak sëñ Ma Njaay sëriñ bi neena xolam set na bu baax lépp lu ñu laxase rek am na lu tax ñaar ñi yàllaa leen boole jaarale ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall ba ci señ sëñ Modou Mbenda muy Serigne Balla ak Serigne Talla Modou Mbenda mu doon ànd gu yàgg goo xam ne dafa teg ci kaw taalibe kon loolu mooy dem ba lii man dugg ci loolu mënta ñàkk faw aw yokkuteef am ndax sëñ Talla Modou Mbenda mi nga xam ne moo di way juram te jaxaso won ak sëñ Balla amna fum fu mu Balla ngir ak taalibeem ak doxinam mom mi itam njabotuk sëñ Balla gi fi dess amna fu len sëriñ dam Faal tek ndax seenu doxin ndax ndigal lu jog sëriñ bi santane ko mbollem lu sëñ Balla am ak mbollem lu xeetoog soxna Astu ak mbollem bokk yi def nañ ca lañu man jëfee kon na nga xamanteni non la ko bi kon sëriñ bi xolam sedd na bu baax a baax baax xelam it dal na bu baax a baax a baax ci njaboot gi la ca dolliku mooy sëriñ bi kat nañu bàyyi xel ne moom ci jëwi boppam ku ngeen fi gis la tàmbalee ca yeneen yi ba ci sëriñ bi ci boppam ba ci ñi fi desal sëriñ bi kër goo dem ka fa newoon bu ñu nee newatu fa na ñëpp xam ne jëmm jaa waaye mboolem la fa newoon du fa jóg fi bii ngeen gis. ak jëmb jii ngeen jàkkaarlool at mu jot ma ne leen lu waay bëgg na ko fas su ngeen ko fasee di ngeen ko am ndax yëf yi daawu toll nii at mu jot dana gën a yokku te mbégteem yàlla dafa fonk nitam yi mbégteem ci nun taalibe yi mooy sunu ndimbal jëf day tungee mu ab taalibe sànni ko fa mënta àgg moo tax jëf jii ngeen di jëf di ko ko jëfal xolam di ci sedd jëf jooju di leen di tungeemu di leen sànni fu ngeen mënta àgg ndax loola ngóor a yóbbu fa kenn jëf rek a fa yóbbu kenn waaye du ngóor a xolam sedd na ci yéen bu baax a baax a baax a baax xelam it dal na ci yéen bu baax a baax a baax wax na ba tudd déguisement yi alhamdulilahi rabil alamin kon loolu soññee la ci ñi nga xam ne xotteeguñu déguisement yi bu ëllëg bu déwee neeg jàmm ko fekk ci jàmm kuy ñëw na maase kon soññu nañu sëñ bi soññe soññe soññaat nañu bu baax a baax seen sant na leen ànd ak rakk yi ay rakkam yi ñoom ñëpp sant ñu leen bu baax a baax barke borom Tuubaa ak Seera Faal lu waaye bëgg na ko fas nag kon bisimilah sëñ bi ñaan ajar ngeen jëf sëriñ bi neena na la ca tege nag mooy neena na lu yag lu nek deug la neena na comme ni ko waxe rek neena na sëriñ bi musa na ñew di magal si neena na togagut toogagut xalifam sëñ Modou Mbenda waaye bu ñëwee mbolem diiru fukki fan yi nga xam ne magal gi añ bi ak bi ak ndekki li dara du fi manqué këram lañ koy toggee moom sëñ Balla indi ko fii mboolem ko fi nekk ca ngay xiiwlu ba keroog màggal gi jeex waaw waaw mu ngoog waaw waaw sax bisimilah waaw si kat yokku na ndax demal na rew siyaare yonent bi

أخذ ديني منه قائما تاليا بخير لوني